bi nga duggee ci biir ba génn réaction Sénégalais yëpp ñu ngi xaar. tuuti rek waaw yàlla bu baax rek ci wax bañ fee ñëw rek doon seet si Ousmane Sonko comme ay sénégalais lañ te yàlla dogal na tey suñu kilifa la te ñëw fii tey ci buntu buntu hôpital bi di yëg ne tey ki fi nekk. du ko ndaw du nit ku ndaw koo xamante ne euh, citoyen maanaam citoyen simple du ko mais citoyen extraordinaire la te tey loolu li nekk ci buntu buntu buntu buntu hôpital bi tey wane na loolu wane na ko moo fi nekk donc kon nag loolu moo taxoon ñu jóge léegi ci conférence de presse bi Walfadjri doon def ci affaire Pape Ndiaye ñu ñëw ah, jàpp seet ak ñaanal loolu moo taxoon ñu d' accord ñu ñëw ci brutalité bi ak acharnement bi nga xam ne ñu ngi koy def à la personne d'Ousmane Sonko. Eh, naka nga ko gisee waaw moom ñun gis. Mhm. maanaam bu fekkoon sax lu leen yoon may la. Mhm. ñu ko doon def ba feebar fekk ko ci. téléphone ngay jël saa dinañ xam ne ñii dañ doon def seen yëg mais liñ doon def yoon mayu leen parce que tey juge su eggee démb ci juge bi daf ko laaj ne ko est que yow yaa wax ñu jël si ma mën ko déedéet te mhm. naa ne police yi foofu gendarmerie ak police yëpp mënu ñoo jëfandikoo dara ci kaw lu ñu teg ko ci loo xam ne ordre la wala caméra parce que li mu doon def moom ak juge bi la mhm. mais du moom ak si police ak gendarmerie donc nag nit dañ ko tooñ ñaari yoon mooy tooñ nañ ko yàq Euh, maal ma ne nañ ko ci loo xamante ne seen loxo pour warul waroon mën a laal jëfam ko picc bi toj nañ oto enlevé ko séquestré ko ci loo xamante ne amul benn loi bu ko bu ko bu leen ko may voilà li ci gën a naqari nag mooy li nga xam ne def nañ ko ci at politique parce que tey euh, benn bokk yaakaar mënoon nañoo bind sax benn communiqué maanaam mastaw mhm. du leen teree dee du leen teree nekk ay Macky Sall mais gis naa ku mel ne Moussa Bocar Thiam yaakaar naa mooy booy disco boobu rek euh, ministre des xaw ma mooy seen ministre yéen ñi taxaw fi communication euh, mooy ministre de communication bu euh, bu bu kii ko non non bu Sénégal moo jiite communication donc moo jiite presse te donc moom mënta wax mhm. yaakaar naa yéen war ngeen dem ci Macky Sall ngeen waxtaan ak moom mu wutal leen bu mën a wax mhm. mu doog def mu jiite communication parce que communication balaa nga cee nekk da war a nekk sax koo ne mën nga communiquer daayo parce que moom ay ay waxam du wax waxam làmmiñam leerul ba pare du wax que nit ku nga xam ne yow doo médecin xamoo wér-gu-yaramu ki fu mu toll nga toog ci télé ne kooku dafay tappale donc kon yaa ngi yi nga xam ne ay assermenté lañ yaa ngi insulté tamit wér-gu-yaramu nit ki ak kilifa kilifteef yi nga xamante ne yow nekk nga ko moom mu nekk te moom moo toog démb publiquement mu ne Ousmane Sonko dafay tappale ba pare Euh, euh, elle sera condamnée mu ne danañ ko condamné mhm. te moom du juge du dara amul sax droit di wax ci loo xam ne dossier la bu nekk ci loxo yoon mhm. waaw bu ko neexee nag mu daal di jékki-jékki mu ne damay analyser kon kenn mënu ma ko tere soo ko waxoon benn baat ñu ne da ngaa da ngaa da ngaa insulté loo xamante ne institution la mhm. noonu la demee mais nag loolu danañ ko comprendre parce que ñoom xam nañ naka la ñuy demee ci médecin diil ak moom naan kii dafa feebar kii dafa ëmb te ëmbul parce gis nañ fi kaawu Amy Ndiaye Euh, taxaw na as nañ fi kaawu Ami Ndiaye ñi bi docteur Malick Diop mu taxaw mu ne man député laa man agent ah, assermenté laa médecin laa kii dafa ëmb te maa ngi lay waatal ci alxuraanu karim waxul dëgg kon ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñeme nañ ñoom nekk député taxaw assemblée nationale nekk médecin ba di fen dégg kon donc ñoom kon xam nañ loolu ne seeni médecin kon ñoom mën nañoo dem taxaw ne kii dafa ëmb te ëmbul kii dafa feebar te feebar xay na loolu ñu xam ci seen médecin yi looloo tax médecin beneen bu ñu gis ne kooku la muy wax lu dëgg mais ñun ay la 30 ak ay la 8 ak ay la 2 ñun ñoruñu lan moo ñu ñor mooy wér-gu-yaramu Ousmane Sonko ak bakkanam te di wax xaw ma Moussa Bokar Thiam la xaw ma keneen ak politique waaye ñoo ngi leen di wax na de nañ ñaan rek euh, ak képp ku nekk ci yàlla jox ko wér gi yaramam ba nekk ci jàmm. d'accord ñu ngi dégg ay médiation waaye jàmm jàmmu réew mi mhm. mooy jàmmu Sonko. d'accord bu Sonko amul jàmm. Mhm. réew mii kenn du fi am jàmm. Mhm. loolu moom na ko ñëpp xam. d'accord bu Sonko amul jàmm. kenn du fi am jàmm. kon nag nañu bokk ñu ñëpp veillé ci wér gi yaramam ba pare. gis nañ Mame Mbaye Niang démb muy ciblé ñii nag ci plateau yi naan ay kii day tapale day def nangam. tappale ñoom ñoo ko xam comme ni ma la ko waxee ñoom ñoo ñemee dem ba ba ci à ce niveau ñu tappale ñoom ñoo ñemee médecin taxaw ne kii kenn violé wu ko ñu ne médecin bi waxul dëgg ñoom ñoo xam loolu mais li wóor te wér mooy Ousmane Sonko nit ko def loolu nga xamante ne dëppoowul ak dëgg wala dëppoowul ak yoon te loolu moom la nekkee woon ak ñoom bi muy liggéey ak ñoom te bi mu génnee ci ñoom di politique di danseur danseur Ousmane Sonko du wax lu dul dëgg man am naa ci firnde keroog euh, mardi bii jàll bi ñuy def di ci akapes bi muy bëgg a wax dama ñëw ma ne ko suba dañuy def mbàkke meeting préfet bi autorisé na ko na nga ñu may promotion nga waxal ñu ko ci mu ne ma waaw gis nga boo dégloo discours bi bi muy wax mit ñi def ay marche mbàkke la tudd mhm. amul woon sax place di wax mais comme man permettre na ma ne dinaa ko wax rek man xam naa ne fi ma toog maa ngi ne Ousmane Sonko de lu mu wax nit dina ko def parce que li muy wax ni man su ko su ko waxul woon sax dinaa comprendre rek ligne éditoriale bi mu jëloon ci biir waxam moo ko mayuloon muy dëpp di wax ci mitinu Mbàkke bi mais ñëw na ba si wax mitinu Mbàkke bi mu wax ko comme ni ma ko permettre moom amul lu muy wax lu dul dëgg amul ay tappale amul leneen li ñu ko def nag nitu lu koo xam ne doomu aadama la rek soo jëlee ay ay ay ay ay acide la xaw ma xaw ma mënu ma ko tuddee boisson xaw ma compas gaz la xaw ma parce que ñoom matériel yi ñu jëfandikoo ñoom ñoo ko xam mm-hmm. mais lu wóor te wér mooy am na lu ñu ko sotti loo xam ne gaañ na ko am na lu ko voilà loolu nag loolu moom lu wér la te bu ngeen ko xoolee ci image yi ko gis euh, ku déglu ne mbind médecin bi bind da ko gis ku dugg ci biir it ba yàlla may la nga gis ko di nga ko gis. loolu moom noonu la demee. ñu jeexale ak médiation bi nga xam ne ñu ngi koy dégg depuis démb ak léegi même imam Dramé sax dëggal na ko waaye nee na ñoom ñu mu ñooñu nga xam ne moom lañ tudd ñu dox médiation ñooñu dañoo far ci APR looy tontu ci loolu. non man nag médiation yooyu moom man man gëwuma hmm. man gëwuma ay médiation gëwuma dara. man li ma gëm. Hmm. mooy Macky Sall moo yor réew mi na respecté boppam respecté justice bi respecté loi yi mu yore ñun dañuy opposé wu ñu nekk ci suñu opposition te respecté bi ñuy def su élection jotee nañ organiser élection yi ñu gagné ko mu dem yoon fi amatul lu ñu fi négocier ñun Macky Sall daf ñoo tooñ ñaari yoon benn bu njëkk bi mooy respecté wuñu bi ci des mooy ministre de l'intérieur dafa nekk lu dangereux loo xam ne boo koy jox nit da war a jox bu am fit bu am xam-xam ku way mais tey Sénégal tey mën nga comprendre que ne Antoine Diome amul jabar ci réew mi amul doom ci réew mi hmm. Moussa Fall amu fi jabar amu fi doom ak ñu bëri ñi doon taal Sénégal démb fii yilif seen police yilif gendarmerie koo ci waxoon génneel ma sa jabar wala génneel ma sa doom du ko génneel hmm. donc ñooñu seen responsabilité dafa des loolu moo tax biip ñi dem di jël ay oto di fekk ab responsable politique bu toll ne Ousmane Sonko nga neex dañ koy forcé ci kanamu caméra yi ci kanamu ay militant lu la ci fekk yow la voilà mën nañ jàpp Ousmane Sonko maal ma ne ko yóbbu de mais démb ku ñëw fii Sénégal xam ne parti Pastef dafa décrété couvre-feu démb te appliqué nañ démb ñun ñoo ñun au lieu que police gendarmerie ñoo defoon couvre feu wala état Sénégal mais parti Pastef démb ñoo yóbbu Dakar couvre feu partout Sénégal appliqué de jaay doole ñoom nañ respecté loi yi ñu ci ñu respecté loi yi ñu tënk moo gën nekk ci néeg di waxtaane loo xam ne euh, dafa wérul dañ ko war a faji ah. voilà loolu rek laa ci mën a wax. d'accord merci man wérul laa ngi. jërëjëf jërëjëf sëñ Bara. kontaan naa ci yow rek. man maa ko vice coordonnateur de jeune